عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق waaye wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu bokk benn benn at bi waaw ñëpp ñu bokk benn wut waaw ñun kon ñu leen dokkeel bu baax ci seen taxawaay waaw ñun imam jaar nañ ci loxom lu bëree bëree bëree bëree bëree bëree waaw lu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree waaw euh, kon ñoo bokk lépp. waaw bu jot nag da yàlla ko yomb. waaw li Samara wax rek bàyyiwul ci ndox dara. ku bëgg a feeñal lu jotul. waaw bu jotul kenn mënu ko kenn mënu ko amal. waaw ñun yàgg nañ yàgg nañ xam Cheikh Abdoulaye bu baax mu xam ko mu xam nañ yu bu baax ñu ñu xam waaye nag lii te yàlla yàlla am ko doon dogal yàlla am ko doon dogal. kon ñu ngi ndokkeel Cheikh Sakhir bi nga xam ne moo moo ko sabab. te ñaareel ba di wax ne rek lii lu ama am solo la waaw maanaam muqaddam yi bàyyi jóg seeti muqaddam yi bàyyi loolu du caaxaan mm-hmm. loolu lu mag a mag la mais lentoon ñëpp ñu ngi koy defee noonu nga xam ne yëf yi di gën di yaatu waaye yëf yi di gën di yaatu li bàyyi waxoon ne euh, fayda bi euh, te tëddu alal ba sit ay sukkanti tijaan yi fu tijaan man nekk soo fayda bi dana fa dem dégg nga waaye buy tàll dafa am ci loxo bu muy tàllaloo waaw buy tàll dafa am bu muy tàllaloo kon yéen a yéen a féetee tool yi Dakar yi kon yéen yéen liggéey bàyyi fii waaw yéen liggéey yéen ci liggéey bay ngeen nekk waaw ci liggéey faydu ngeen nekk kon yéen bu leen kenn faydu moom laa ndaw Cheikh Wade moom daal leen fay ci liggéey ngeen nekk kon yàlla yàlla gën a yokk seen mbooloo mbooloo mi yàlla ko yàlla barkeel yàlla yàlla barkeel mbooloo yàlla yàlla seen mbooloo yàlla yàlla barkeel seen mbooloo yàlla yàlla gën a dëpp dëppale xol yi barkeel xol yi bi jaaxe rasulillah ngeen bu leen dañ mukk di nekk xuddaamal xadarati waaw yàlla bu leen dañ di nekk xuddaamal xadarati ñoom wax ne na man istaxdam naa xaddam naa waaw ku ñu liggéey ñu jiital la léegi nag lu lu ma gën a lay amul waaw bàyyi ndax li mu fay ne ba bàyyi mission dara koy fay waaw faydu la faydu rek mooy mooy mission waaye li ci des buñ fi muy kayit kayit yi moom kayit moom ñëpp ko xam waaw kayit moom ñëpp ko xam waaye nag yàlla dafa moom ci faydu ko yàlla jox waaw yadaahu liman yuriidu ay rsa fu ko yàlla moo koy tëral fu ko neex moo koy jox ku ko neex moo koy jox ku ko neex loolu la wax kon kay gannaaw moo koy jox ku ko neex na koy jox ni yëpp tëral na leen ci cëral na leen ci yàlla na yàlla gën a wattu yàlla yàlla gën leen doon di xamul gën ci xol yi yaaxe rasulillah seen loxo yàlla ko tawel kat ba taraanga àdduna ba xam ne lépp lu ngeen bëgg a def ci lu baax da ngeen ko def ci lu ngeen ko yi yàlla tawel ko bëgg moom xasan Euh, mën na ko yàlla na ko yàlla defal ay rakama yëpp di jaay rasulillahi sallallahu alayhi na yàlla gën leen taxaw gën leen suturaal gën leen man nag ci ci biir loolu loolu dafa léegi la ñëw ci man rek loolu léegi la ci man waaw digalu ma leen dara wax loolu digalu ma xam nga digalu ma kenn dara waaw digalu ma kenn dara waaye euh, comme comme lu mel ni suñu diwaan bii diwaan Mawlana Cheikh Ibrahima bii nga xam ne am na lu ci nekk moo xam ne ñu ko bàyyi tëggee mën koo ko ñàkk seet mooy juróom benn diwaan la. doo leen sit xam nga juróom-benn diwaan la soxoraawu jaahiliya ñu takkoon wëy ci arab yi ba nga xam ne seen wëy dañ koo ak ca kaaba ga ngir mën buñ mën a wëy ñu gis ne ñi ñëw ñoo jogg ci ñëpp kenn dootu leen am kenn dootu leen bàyyi moom kenn ñëw def diwaan sit moom kenn def moom kenn diwaan sit tam mu ko defee ci yonent bi la ko def def diwaan si ba mu jeex mu jël beneen diwaan bi mu jëlaat benn tegaat ci beneen diwaan boo benn diwaan mu ci benn diwaan bi kon koo xëy kam xam ne ko ñun am nañ dalaayu lu xeeraan waaye dañoo ñàkk bopp waaw am nañ dalaayu lu xeeraan waaw li bàyyee wax bi si daal yu si moo ko war a jàppale ne warul naa lépp lu ci nekk li ma ci ñaan yëpp danga nga ko jot dégg nga ci maanaam ta laay daa taxal la ko wax ko ko wax ko alaa jàppale waaye itam naan nag képp ku ko jàng tamit nag ak xol bu sell ak ci yéene woo ci bu nga ci eh. parce que bu fekkee sëriñ bi boo ko toppee itam doo am dara eh? kon looy toppee eh? yàlla sax buñ koy topp naa koy subboon ko du subboon ba waaye dañ ko yaakaar rek waaye ba fekkoon nag yaakaaruñ ko duñ ko topp naa ko subboon ko du bu yaakaar na yoon duñ topp yoon naaj ji julli ci yoon bi kon nag lu mel noonu dawaa man li ma gis mooy comme ni ko aw say toppee moom bët bu sare nga fexe taalib yi toog jàng benn waaw bët bu sare nga xam ne bu rek nga delluwaat fu ñu koy def wóor na mu wóor yàlla barke dana fa ñëw waaw fu ñu koy def barke dana fa ñëw mbooloo moo koy def yàlla dana fa barke loolu daal mooy suma xalaat la te te yaakaar lu wér a waaw lu ndax ñu am nañ dalaay lu xeeraat mm-hmm. waaw ñu am nañ dalaay lu xeeraat mooy diwaan bi mm-hmm. waaw mooy diwaan bi waaw yàlla yàlla gën a bëggloo Cheikh Ibrahima yàlla yàlla gën woo xiir ci moom loolu la ñu mbëggeelam jaaxe rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla loolu la ñu mbëggeelam ñun liñ xam ba léegi ñun liñ am yéen xañ nga xam ngeen ko ñun xamuñ dara ñu waaye ñun liñ am ba léegi xamuñ ko ndax boo seetloo Mawlana Cheikh Ibrahima Cheikh Soukouré yi ne ko man lépp lu ma doon wax rek nekk du mat nga Cheikh Soukouré lépp lu ma doon wax rek nekk du mat yow garaat boo mos a ràngal rek yow. mu ne ko ndax dëlit dëlit mooy fii ne man mënul mënut maa woy benn satara benn satara mënatu ma ko woy te koo xam ne woy naa woy woy lu ne la woy ay nangami fukki junne béyti la woy woy bay woy jawaaril maani ab abdoulaye sëriñam ne ko pour ko woy xaaral ba ci kanam dégg nga mu ne moo dem ba mënatu woy benn satara loolu yéeme na di ah, loolu yéeme na waaw oh, loolu yëpp dafa xam nga ne moom la ndax Cheikh Bara moom itam xamul ne moom mu ngi noonu rek mu ngi noonu rek waaw ah. baax xarit bu baax xadam bu neex a tiitaroo nga xam ne yàlla ba ñu ànd maa ëpp na nekk ko ay fanweeri at moom at mu ne mu gàmm fi indi pa axam ndax maa ngi si ñu defal état bu mag imaam asal moo ñu boole moo tax suñu àndoo gi ngir yàlla la ak tam néegu sey daa sa taawal liñ bokk di ko tiitaroo jamono ji ne kon lii dañ bu woon defal jotaay ba jotaay ziaraam dañ a décorer wax yàlla dogalu ko moo ñaan yàlla yàlla dundal a may ko wër yàlla may ko libaasu taqwa a libaasu yëpp yàlla na ko yàlla solo ci barke baay yokk mbëggeelam ci baay dañoo xidmaal si dañam na ko yàlla saxal may ko barke may ko góor ci barke alxuraan ñaara ya sahir jaay rakk a bi kale a bi moom daal bi a bi alhamdulilah asalaatu wasalaam ala rasulillah ñoo ngi sant yàlla di gërëm sëriñ bi comme ni mu ko waxee suñu mag suñu xarit suñu soppe nit ku yàlla barkeel nit ku yàlla teddal Seydi Cheikh Abdou Ndaw dëgg-dëgg ñëpp xam ko ci bëgg bàyyi ak liggéeyal yàlla ak nekk ci keppaaru Mawlana Cheikh Hassan wallaahu ngir ma sunu ñëpp seen may nekk ndaw ci noonu yëpp mën naa ci xam lu bëri ñu dund ak Imam Hassan ñoo ko gën a xam dëgg dëgg Ndakaaru fii mu benn taalibe bàyyi ci cinq département Dakar yi plateau département Guédiawaye département Pikine département Rufisque département Kër Massar am xew sax ci ñi ngay njëkk xalaat ndax ñaan la sax yal na ko yàlla gën a dëgëral ay doomam yal na leen yàlla mooy barke li muy liggéeyal bàyyi yal na barke boobu di wàcc daay man barke am na sax waaye yal nay dolleeku di wàcc ay doom ak ay taalibe doon di roxmi ak doomi dërëm tey jii dañoo ñëwoon doon ko nuyu si indil ko gan bu tedd suñu papa Cheikh Mouhamed Basir Thiam niñ xam ci Medina ñu ñëw fii donc ndokkeel ginnaaw bi defee conférence ñu ñëw barkeelu ci kontaan ci ñu ñëw fii mu demal ñaan yàlla dëgg dëgg dangeen ma gañ soo ko seetsee moo moo lay tel boo ko seetsee moo lay tel waaye ne war na a moom nag loolu daf koy jëflante ñun ak jaam yàlla yu bëri. dëgg la tax na amuñ daal lu may borom ci baaxam yi. amiin ay taranga. amiin yaa rabbi yàlla ay barkeel ci moom. amiin amiin daal fay. pap borom cër borom màrt ba. moom mu yor ñaan bi. incha allah waaw loolu ma doon wax rek. jërëjëf jërëjëf